ma fukki centre commercial fukki centre commercial ak ñett daal lakk lakk na ko ba noppi ak euh, quantité brève brève ci ci ci ci yoon ci territoire yi waaw noonu mu xate rek waaw waaw mu muy euh, lu xaw a metti la yaatu yaatu na lool it léegi nag ci ci guddi bi mu tàkkee lañ fa dem ah, woo gouverneur mi moo sous préfet ak préfet ñu ñu ñu nekk ci ca biig ci dese ba ba waxtu ba fi ne nii ba de ba tey jii ña nga fa fa lañ jóge nii midi diis lañ fa joge départ ña nga ca fay nañ ko nag ba benn bâtiment benn benn daal moo des bu fayagul waaye ëpp sapeur pompier ëpp nañ ko doole woona nag lu bari woona waa Touba ñëw nañ waa Njaareem ñëw waa Gosaas ñëw waa sapeur pompier yëpp ñëw nañ waaw ñoom ñëpp fa daje ak waaw ak mbooloo mi nga xam ne yeewu nañ ci guddi gi ñëw waaw ñii yori bañuwaar rek ñii yori siwo ñu ñu jàpp ci daal moo tax sax xam naa ne àggul fa mu war ak euh, seeni jàng ngi ni ak fàllu ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci marché ba ñoom ñëpp daal ñëw ne ñu ne bi ñu demee nag ba nga xam ne fay na ah, ñu ne nag nañ ñëw gouverneur ak euh, administration bi ak taalibe yi fa nekk ak ñu ñëw ñu ànd ak suñ ko suñu leeral la. Eh, waaw déedéet waxaguñu ci lu xamaguñu ko ndax dañoo jékki-jékki rek gis mu tàgg. ni ñii jàpp nañ ne xëy na uh, mën naa nekk uh, courant mën naa nekk ñu doon taal ñu doon jëfandikoo sawara waaye uh, police nag ma nga fa. depuis biig ci deux ba fii ne nuyu ma nga fa waaw lu ma téem commissaire a nga fa ak lu ma téeméeri policier mm-hmm. ña nga fa di toppatoo di gëstu daal ba xam lan la ko lan la war a doon waaw mu ngi kon yàlla bëggoon nañ fa agsi si yeneen anam yu dul yi mais suñu tànk tey yi man préfet sous préfet ak maire ñu ñu àndal euh, dañuy ñëw d'abord pour massawu la parce que lii si sa njaboot la dal fa demul rek doo xam jéye ji lakk gi ni mu amee doole ñu bëri yàqutil na yàqule nañ ci commerçant yu bëri yàqutil nañ ci yu ci bëri daañ xëy daan fa liggéeyee seen liggéey dina sooxe fii àddina toll lu mel noonu bu dalee si ab dëkk dal si aw askan loolu lu diis la loolu lu lu lu lu yéeme la lu mat a taxaw la moo tax nag ginnaaw yaa yëlif dëkk bi tam euh, ñu amoon si yaakaar bu baax dëgg yàlla ne liggéey bi ñu bëgg a def parce que lii bu amee ndogul suñ borom la waaye nit tam lu ko dal rek day jéem a seet li tolloog moom li tolloog xelam li tolloog doole mu jëm ko def pour moytandiku ko boobu liggéey nag ginnaaw bañ la masawoo ci lii parce que lii ku mu dal sa njaboot metti na ñu ngi ñaan ngay jàppale ñu ci ci liggéey boobu ñu bëgg a def euh, maire dina woote ñun ñëpp dañ koy woote bi Touba lay doon ko defee man ma ñëw ak service yi ak sapeur pompier ñun ñëpp jéem a seet nu ñuy def ba organiser waat marché ndax bii bii lakk gi amee deux heures du la deux heures vingt rek ñaar fukki minutes dañ ci teg rek sapeur ñëw kon boog sapeur yi tardé wuñu waaye amuñu fu ñu jaare yoon wi yëpp ñii puus puus a ngi fi te waroo faa ne fii a ngi fi te waroo faa ne fii cantine a ngi fi te waroo faa ba tax nañ ñoom amuñu fu ñu jaare ba fay lakk gi ba heure bi ñuy wax am na ay tàkk-tàkk fa lañ jege te bu fekkoon loolu amul yoon wi libre na fa ñu war a ne ku nekk fa nga war a toog toog nga fa xëñ na du bu métti du méttee ni mu méttee nii loolu nag dafay laaj benn liggéey boo xam ne foo ñu toog waxtaane ko waaye day laaj nga dugal ci sa kàddu dugal ci sa ñaan bu ko defee yàlla tàppe xol yi ku ñës itam jégal fii nga dem ci marché bii wala nga tooge na le nga nangul ñu ko te xam ne lu mel nii rek la ñuy daw seen njëriñ rek la ñuy daw liggéey boobu nag ah foog nga gunge ñu ci ah, incha waaw loolu daal waaw dëgg yàlla ci ñaan ci joxe ci ay kàddu ne leen daal luñ ci luñ leen ci sant rek mhm. ngeen def ko te xam ne njëriñ yi ñëpp a ngi ci waaw waaw nun ngeen di dimbale. waaw waaw nun ah, ngeen di dimbale kon lu ngeen ko te da ngeen ci am wàll ndax yéen la yàlla jox mhm. baat bi mhm. teef gi mhm. yàllaa ko def kon lu ngeen ko sayte boo xam ne nii lay gën a loolu daan ci ànd ak yéen waaw daan ko jox ndigal waaw incha allah li des moom lépp moom lañ ko delloo yàlla rek dogalu yàlla rek suñu borom du kenn du kenn lenn dogal dogal eh, lafa lafa lafa xëy na dana bari lool. waaye yàlla moo ko fa defoon te du jeexal. dëgg mën na faa def lu ko ëpp mën na faa def lu gën. rek la. loolu foofu dong lan ne lan lan nekk. ndax mhm. noonu dong la demee. Mhm. lépp moom dañ koy delloo ci yàlla rek. Mhm. nga xam ne dogal ba moo xam. yàlla mooy def mooy dindi. damay wax ne moo def mooy def mooy dindi. moo xam li muy def. moo xam ni muy defee. moo xam li ko tax def. moo xam moo xam li muy def. moo xam ni muy def. moo xam li ko tax a defee loolu yàlla rek te mooy def mooy dindi kon lépp dañ ko delloo ci moom. dellu si nag suñu bopp te xam ne ay jaam rek lañu. teg-teg bi dañu koo teg ci coobareem. dañu koo teg ci coobareem. nag moom jëfam du du luy neen. waaw yàqul fawul juumul neen. waaw kon na la xam njort ne dafiy indi rek lu ko ëpp. wala dafay indi lu ko gën. incha nan rafet jot suñu bopp bu baax. xam na tam moonu gën a xam suñu bopp. fu mu toll. moonu gën a xam suñu bopp waaye moonu gën a xam suñu bopp moonu gën ji suñu bopp. moonu kon rafet jot ak dolli ko yaakaar ak nag ni nga wax. Mm-hmm. jóg nag ci li nu di xel yi mu dénk. ci ci eh, ko ci yéen kilifa yi ni mu jox baatu àdduna bi. Mm-hmm. nu ànd ko yéen. defe ko na ngeen ko xalaate te na mu war a gëne macha allah loolu rek moo fi nekk macha allah alhamdulilah waaw sëy ni yaakaar naa baa ngoog rek buñ jógee ñu ànd rek ah, waaw ñu nag yéen ak mm-hmm. sa ndawal ah, ndawal maire bi ñu ànd waaw ah, ñoom ñoom ñëpp samay ndaw ndaw lañu maa ngi leen déglu rek nuñ ko xalaatee rek ah, nuñ ko xalaatee rek ah, ko daañu moo koy wane daan danaa ko ànd ak ñoom ah, waaw fa nekk mbooloo ma ñoo ko ànd ba nëgg ni daal bii ci ci ci ñaari waxtu bi bisab tey bi daal ba waxtu wi daal kenn naana gu fi ko fe waaye nag ñu ngi ànd ak ñoom di dalal seen xel di taxaw maanaam ak administration bi ñoom ñëpp taxaw waaw bi nag nee na nañ bala def dara nañ ñëw leeral la ko bi mu fayee. waxtaan bi sant nañ bu baax seen gërëm taxawaay bi. taxawaay bi rek ci am solo. dëgg la yéen def ngeen kon leen war taxawaay bi dong moo ci am solo dem ngeen leen war. mooy wax ne taxawaay bi mënut a ñàkk. Hmm. waaye nag moo jafe. moo jafe waaw la ñàkk. Hmm. waaye moo jafe. kon nag mooy jërë ngeen jëf taxawaay bi mënta sëkk tabarkàlla ñu ngi sant di leen gërëm bu baax di ñaan ñun ñëpp suñu borom gàttal na taw feex a doon lu rëy rëy rek lu tuuti tuuti suñu borom gàttal na ci gàttal na ci ak taw feex rawet na taw feex sëriñ Tuubaa waaw lépp day dana dana lépp dana di barke lépp dana dellu ci ndimbal. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw mm-hmm. incha allah. alhamdulilah jërë ngeen jëf. jërëjëf jërëjëf bu baax a baax.